ba tey ñu ngi nii ci levée du corps bi ñu ngi nii ak Pape Pape Abdou di promoteur nekkoon nawle Serigne Modou Niang père dañ lay bàyyi nga nuyoo aussi ñu ngi lay jaale li ñu bokk. waaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, te dañu yeewu ak ndogalu borom bi suñu mag suñu frère suñu doomu ndey El Hadj Serigne yàlla jël ko muy nit ku jullite nit ku am yar nit ku am teggin nit ku am iman jàmbaar un homme qui a tout donné à son pays un homme qui a tout donné à la jeunesse de son pays un homme qui s'est toujours sacrifié pour l'occupation des jeunes de son pays donc moom la yàlla moom tey euh, muy nit koo xam ne nag euh, njàngat la ci àdduna toujours mu ngi ci roqam jàpp njàmburam def li mu war a def toog kon bu ñu def lu dul rek yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla teere ko ci teeru ko ci aljana yi gën a kawe en tout cas Sénégal ñàkk na jeunesse su Sénégal ñàkk na monde làmb ñàkk na parce que lu mu doon dee dee dee dee ba tey jii may wax ak moo waroon a tëgg kon mu ngi employé ay jeunes mu ngi jàmbal jàppale état ci liggéeyam en tant que un digne fils de son kooku moo fi jóge ñu nekkoon nag moom ci jàmm ak salaam ak yiw mu doon suñu wëllëre loolu daal moo justifier suñu teewaay fii yàlla nag bu soxlaa jàmm bi day daal di nangu li ci des mooy ñu ñaan ñëpp dellu ci yàlla lu sax lu ñuy ñaan dafa xam loo xam ne daf nu war ñu xam ne bis bi jombul kenn dañ leen nekk ci lu baax def lu baax ci dox lu baax ah di jàpp ci lu baax bis bii na ko ñëpp bàyyi xel moom mbiram féete na boor te li ma gëm ba gëm duma yàlla duma yonent bi waaye firdaw si la jëm ci aljana yi gën a kawe parce que nekki na moo rafet yaruteem jar na ko dimbali doomu aadama jar na ko dimbali réewam jar na ko dimbali njabootam ak taxawu leen jar na ko loolu daal mooy justifier suñu présence fii yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe yàlla may njabootam ak wóllëreem ak xaritam yi ñëpp xolu muñ te incha allah yàlla na ko yàlla def yàlla na yàlla nangu lépp luñ fi ñaan jërëjëf. voilà gis nañu ki nga xamante ni moo di Serigne Modou nekkoon loo xamante ni promoteur bu mag la woon ci làmb ji kon fi mu nekk ni mu mel ni waa axlu làmb tamit ñàkk nañu monument mi mi mais c'est ce que je viens de vous dire euh, loolu laa la wax euh, làmb dama ko jël sax seppi ko parce que dans la généralité Sénégal mais moom ku ko xam-xam ko ci làmb euh, moo ñu njëkk ci làmb gën ñu ci yàgg def ci loo xam ni mënuñu ko sax dab et que ci base confiance boobu ak ni mu ci nekkee woon en tant que digne pays moo ñu encouragé ba ñu daal di teew ci biir làmb kon ngàcce ngaalaama mosuma ko dégg ci lu ñaaw mosuma ko xam ci lu ñaaw modèle la sama xarit la woon suma confident la woon daan nañu daan séq ay waxtaan yu sori mu jekki woo ma wala ma woo ko wala man bi may mujj dama dem seeti ko ñu am ci lu ñuy waxtaan ñuy waxtaan ba xolam tooy man ba ma fay jógee sama xol dafa tooy ci këram fii ci pikin yàlla laa jël seede donc euh, làmb ñàkk na njabootu làmb ñàkk na Sénégal ñàkk na waaye it amateurs yeeg ñëpp ñu nekk ci làmb ñàkk nañu tey nit koo xam ni yàgg na leen taxaw yàgg na leen jàppale yàgg na leen bégal yàlla nag bu soxlaa jaam bi day daal di nangu yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na yàlla teeru ko ci firdawsi yi gën a mag a mag a mag a mag yàlla na yàlla teg loxoom ci njabootam ak ay xaritam ak ay àndandoom yàlla may leen xolu muñ yàlla na yàlla nangu. waxee ba tey ñu ngi nii ak ki nga xamante ni moo di Père Pambaay Père Pambaay mën naa ne bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo njëkk a teel Serigne Modou Niang micro central pendant des années ñuy liggéey per tey nga ñàkk aussi ñu ngi la koy jaale. auzu billaahi mina sheytaani rajiim wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin saydina wa mawlana muhammadin wal ali wa sahbi wa sallama tasliman rabbi israh sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di sant yàlla di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàlla yàggal te wéral ko di ko ñaanal mboolem góor yàlla am ngërëmal yàlla yëpp di wax ni tey bés la boo xamante ni wax nga ko maa ngi jóge léegi ci waa Lutte TV daanaka kàddu gi benn la sëñ Modou Niang dama koy faral di wax naan defar na ay woykat defar ay champion defar ay microcentral mais slogan bi ma gën a neex mooy jëlee ci suuf yóbbu ci kaw moo jël ci suuf Balla gay jël ci suuf Modou Lo Bombardier guy gi je suis témoin li may wax ne yóbbu ba ci kaw ba tey ji kenn ku ci ne ci ñoom yaa ngi yor sa teraanga yàlla indiwaat ko li ko gën a leeral mooy tey moo war a tëgg ay espoir la tëgg jëlee ci suuf yóbbu ci kaw boobu depuis vingt et un ans vingt deux ans ci mu ngi ci jël ci suuf di yóbbu ci kaw li lay wan ni la sëñ Mourou ñaan nitu yàlla la xool li ko yàlla defal tey maa la mën a waatal ni xale yi bëreeguñu mais seen ñoom ñëpp amelul ci kenn dërëm. benn mbër du taxaw buntu kër sëriñ Modou Niang di ko laaj xaalisam dafa lu mu doon sóor bés bi xal-xal mawtu wal xayaat suñu borom dee la jëkk bind te lii liggéey la rek waaye jële si yóbbu ci kaw boobu da doon wane ni man xale yi ñoo ma intéresse mais du làmb tëgg na làmb taxawal ko làmb ji ñoo fees dal neex ñëpp ñëw seetaan te doo ko gis moom mu tëdd këram kon xanaa xale yi ñoo tax ñoo ko ñor te wax na dëgg nee na ma boobu ngande tey métti fu mu toll bu ndaw te sedd guy a ko gënal man ko lu tax mun ma 100 millions yi ñuy jël ak 200 ko séddale ñaari mbër ku dama ko jël tas ko ci xale yi ku ne am loo yóbbu sa kër waaye kooku yàlla na yàlla fay xolam waay mag c'est en mille la lama jël période boobu lañuy ñuy wax période tout la vache maigre xam nga luy vache maigre mooy jamono boobu làmb ji doy na waar sponsor retiré wu làmb ji métti na Gaston téye na loxom ñëpp ku ne téye seen loxo mu na moom du bàyyi waaye dina créer benn système muy làmbi banlieue boobu nga xam làmb ji làmbi supporter yi ak fans club la benn amateur du ñëw ndax ñu ngi doon sóoraale violence yëpp mu indi ko làmbi géejawaay te ngéej barñi Yoff Wakaam Ngor ci lañ ma coopté comme microcentral 2008 ak léegi ça fait combien d'années 15 ans ci ren c'est pas kon su ma nee génn na ci suuf yóbbu ci kaw def na ko ay promoteur def na ko ay ay tëggkat def ko ay woykat Papa Ndiaye Edembu defal ma ko man mi tam kon dëgg la man je suis témoin oculaire mais dama ne man depuis 69 diggante Mbaye Guèye euh, Mohamed Ndiaye Robert ak Mame Gorgui fi marché HLM ne ba tey maa ngi ci làmb ji te kenn xaw ma lu tax. 69 léegi ñaata at la ça fait plus de 50 ans 53 ans ci ren kon bu 2008 su ma jëlee niñ ma xam ma kon mu ngi jël ci suuf di yóbbu ci kaw wax na dëgg jël na ci mbëri yóbbu Balla Gaye ak Modou Lo jël ci euh, communicateur yóbbu ci kaw jël ci tënkat yóbbu ci kaw mooy yëkkat yi ñoom Papa Ndiaye Aïda moom ñëpp a ngi ci kaw kon kooku yàlla bu ko fayee xolam xëy na gisu ko daf ko wax pare rek mais gisu ko tegu ci bëtam ndax loolu mooy sooy def da ngay def te yàlla tax bu xool bu ci teg bët mais loolu jaamu yàlla bu mag la ndax man saa bu ma liggéey bu ma pare mu fay te ci liggéey boobu ma koy liggéey ci la ma ñeneen gis Fallou Ndiaye maa ko yoral micro central léegi neel benn Jax neel ñaar Yaram Aar neel ñett euh, Fouta neel ñeent euh, Ousin Ousin production neel juróom Badiane production neel juróom benn Karkar macha allah mun naa dolli de. mais dama bëgg yem foofu nii rek à travers Serigne Modou Niang ci micro booba ma yoroon 2008 ci lañ ma gis may liggéey boo xam neex na leen ñoom intéressé na leen nee nañu dama koy def comme ni mu waree ba man j'ai été décoré par CNG tey laa ko doog wax. je défie qui quiconque j'ai décoré par CNG ci Alioune te loolu ci liggéeyu sëñ Modou Niang laa ko amee ñu woo ma CNG y avait les communicateurs traditionnels ñu taxaw ñu yëkkati enveloppe ni ma daan nañ la wax. góorgóorlul mel lu mel ne taxaw ñoo koy wax mun ma ñoxor ndem si yàlla si arbitre bi ñu wax def na témoignage si yow rapport génn na àdduna Thierno def na témoignage ci yow di wax di wax di ma limal ni ma nag enveloppe bii président yi ngi toog Thierno Ka moo la ko jox Ipo Ngaare ngi toog suma mag Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi ngi toog sama mag kon loolu xanaa kon man dama ko su lëg-lekkee alam daf ko war a gërëmee cooy loolu yëpp su amee xanaa kon su ma sëñ Modou génnewuloon en 2000 du ma ko am ma ko wane sama talent kon jëlee na ci suuf yóbbu ci kaw am pagaay man man amanoom personnel su ma neexee ma ne aw nom de tous les communicateurs traditionnels ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko cat bañ na jege sax yàlla bu ko cat jege fa mu jëm mu yaakaaram seen Tuuba mi nga xam ne bi sallallahu alayhi wa sallam moom lu mu am yonent bi sëñ Tuubaa musta muhammad moom ku ne xam na ko haza matlabu shifa fi tawassuli wala mu ne jawartullahi bil kitaabi wala muwaabi naa fi madasa fi mais day julli ci yonent bi kooka nga xamante ni nee na lu yomal xiyaam ku mu mënti doon la wax yonent bi moo ko wax ne doon ku mu mënti biir Alaaji Malick man taalibe Serigne Fallou la ñëpp yonent bi lañ yaakaar kon ñu ngi ñaan ci barke kooku yonent bi sallallahu alayhi yàlla bu ko cet jiitu si bàmmeel yàlla na ko Serigne Touba teeru Serigne Modou Niang li ñu mën wax ci moom macha allah ilaahi alima mooy nit ku lewet la ku baax la ku dal la nit ku maandu la nit ku mën a liggéeyal te amalu kenn dërëm te sedd guy amul benn safara waaw kooku nit yàlla noonu lay mel lii liggéey la lii liggéey la yaa ngi nii ba bërgate yaa ngi am si ki am ci tur. ba adduna bi daj boo de foo na tey guddi 95 ñëpp xam nañ ko ndax say vidéo man tam ni ñu ma commencé xam te loolu nag ki ñu may opportunité benn opportunité bi dañ koy sant gaañ bu ñuy sant tamit ku hôpital bi mais bu ñu fàtte ki taxani woon. sëriñ Modou moom bu ñu déggee ci ay kàddu ma nekk koo xamante ni yàgg na ak yow bu ñu bëggee xam kañ nga ko mujjee dégg rek ak yan kàddu la la dénk. man de ça m'a surpris li loolu rek ma ci metti nag dem naa benn ngénte Kër Massar nekk fa maître cérémonie ndooy mi nga xam ne coordonnateur bi woo ma pap ma gis ko ma foog nga fa may rappelé bés bi. loolu la sama xel jëkk kon li dévier sama xel loolu dafa metti bi ma ko gisee toujours jour yu mel ni daf may woo ni ma pap mbaa yaa ngi waajal te ce moo xam sëñ Modou la moo xam beneen ko promoteur la toujours noonu lañu defee man kon donc subitement bi ma gisee appel am bi may décroché bi ak ak ak ak ouverture ferveur ak engouement neex-neex yooyu laa doon santé mu indi ma nouvelle bu bon bi na ma yàlla baal sax xaw ma bon la xaw ma mais yoon la ko yàlla bëggee xalaxal mawta wala xayaat yàlla dee jëkk a bind mun ma pap mun naa mun ma sëriñ moo noppalu léegi alors subitement nga xam da ngay jugee fii rek dem fe dama jugee ci ci ci bànneex rek dem ci naqar brusquement mënu mënuma gérer loolu te maa ngi woon ci tudd ñu ngi waaj a tudd ma nekkoon maître cérémonie bi da war a waxtaan. alors man yëgu ma feebaru sëñ moo Niang te mu musuma xam ne dafa wérati ndax man bari mu fa tànk nag ndax nit ku baax la koo xamante ni waaw maa ngi dégganteeg moom bu baax dama koy jël sax en pleine émission sama émission woo ko mu dugg foo mu tëdd di intervenir aw lu ma ko waxal te keneen amul lu ma ko waxal yëgu ma feebar yow mooy bett na ma. wax dëgg yàlla bett na ma deewam bi bett na ma ni mu gaawee ni mu bettee nii ak yooyu nag yàlla na ko suñu borom bi tamit yombale ay mbiram bu fekkoon dafa tëdd tey sonal ñëpp kuy nitu làmb ku ne am na lu ko faje am na lu mu fajoo ay mbokk am nañ ko mais kenn du ko seetaan tam bu fekkoon dafa tëdd tey ji tëraay bi yàgg kuy nitu làmb di nga ñëw seet si ko lawam it da nga ko ko jox te am na lu mu fajoo yàlla bàyyiwu ko am na ay doomam am na wërsëgam waaye li ci gaawal nii xëy na li tax yàlla def ko noonu suturaal ko loolu cet la mbiru suñu borom la yàlla bu ko cet jiitu yàlla naka yàlla mottali tëraayam ca Touba ci barke Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam di ko jaale nag presse bi di ko jaale communicateur traditionnel di ko jaale ménager yi promoteurs yi mbër yi ñëpp rek tey bés bi tey dafa yaatu bés bi tey dafa yaatu ceebu jën la ceebu jën moom Sénégal foofu dugg fekk ko fa bés tey ñëpp ko xam àdduna yëpp ko xam le monde de la a perdu un un homme un grand monsieur. personnalité boo xamante ni wax naa ko fii léegi góobatuma ñu am ku ñu mel ni moom promoteur na duñ jeex mais ku mel ni moom attention je je je pèse mel ni moom ci qualité valeur baax woyof sedd jub non non c'est sûr c'est sûr dootu amati mën nga gis ku mel ni moom waaye na manqué benn wala ñaar ci yooyu. ñu baax bari nañ mais ñii dañoo tàng jër ñi baax bari nañu mais ñii dañoo naqay deret ñi baax bari nañu mais ñii dañoo xaw a na yàlla baal ci moo bi jubuñu ñi baax bari nañ mais am ñoo xam jub nañu dal nañu gore nañu mais amuñu moyen am ñoo xam ne nii dañuy li làmb dafa metti bàyyi nañ bu yàgg mais moom li ci metti yoo xam na ko tëgg na ba tay amul lu mu fayee kii mën na ma jël euh, témoin Pape Diagne mi tëgg na ba tay amul lu mu fayee mais bàyyiwul dana fay ñëpp boo dégg am lu fay am na làmb joo xam ne maa ñëw taxaw ñu ne 40 000 francs moo génn ci guichet bi ñaata la dugal des millions nga pare guichet bi génn 40 000 francs ba pare mi ngi tëgg boobu ba tey mi ngi tëgg ba làmbam teguwaat ci yoon kii làmb amel na ko njugal.